balaa muy wax loolu nag mu ne wala ma anaa ba mu jeexle alkalaam wax la damaa ne ci garante charan commencé na yetakallamu di wax la sharikati ci société mooy ñaar ñu bokk dara bi ab daani ci jëmm yi aw fi amwaari wala ci alal dana jàngale lan mooy société jëmm ak luy xatteem ak lan mooy société ci wàllu alal fa qaala mu ne baabu sharika li mooy buntu bi di jàngale société in haza li baabu buntu la Euh, fii bayaani waaw euh, shirka ci leeral société bi kasi siini ci kasara siin ngeen moo jëma guñ tomb gi wa sukun ra sukun bi fatil awali ma nga fata siin gi maa kasir saani ànd kasara raa gi sharikatu wala baax na rek laa de waaye moom luxatun ci luxatan ci langue arab al ixtilaatu moo di jaxasoo wa charan ci charia حقد مفصصلة يحصل ذنام بين مالكي مالي لكن تنيا نموم نياري عرال فاكسا مبالوكا بولي تجرينجير كوميرس في الجميع تنبولم تن ين نياري نبوك عرال دي كوميرس وكو سوسيتر أو, يحصل هو المهم بين الشخصين دي كنت نياري جمو فاكسا مبالوكا في عمل الأبدان سيجي جفي يرم ين نياري نبوكو عم ميتشي di liggéey di bokkaate loolu mën naa nekk nag waaye dafa am i ay kasbul ay di fàggu loxo yi bi ci métier aw xëy yow a wala dul kal fon laay comme jëfkat yi rek wax de ngeen bokk di liggéey wala ngeen jaxase seen waaye kenn da ngeen dara loolu mooy société ci wàllu jëmm bu ngeen joxe alal nag di liggéey kooku mooy société ci wàllu alal waar kaanwaa ponki société nag salaasatu ñett la aqiduha ko ko fas mooy ku njëkk mooy strop nañ saatal fii ci moom a taklifu man mukallaf warus du ak ñor xale mënu société dof mënu société koo xam ne dafa dese yàq ko taalal mënu société société de wal maaquud ale ak lañ fas woo moom almaalu moo di alal bi sarti sa tamaraati aji dikk xalal ji nga xam ne nii moom ngeen joxe kooku mun cee ñàkk dégg nga moment yeddu ak lay tekki alal yi daa ci d'accord rek ñaar ñëpp ñaar ñu bokk alal ja wala ñu bokk di liggéey ànd d'accord bi sharikati ci société ga war fan ci aada dégg nga gi daal nu a demee rek baax na nañ xam ne daal d'accord nañ rek de kay saarati ni ki junj mu fi metin buy déggale ab d'accord aw kitaabatin wala bind aw xalti maali sharikati wala jaxase àllu société ga ah yi ngeen joxase seen alal yëpp di liggéey kenn waxu dara xam ngeen da ngaa d'accord moo tax nga nangu loolu wala boog ngeen bindante leetar wala boog nga junj ko daal luy wane ne d'accord nga yooyu yëpp d'accord am na ci de aw suron wala amili wala suubu aji liggéey ja fi amali ci liggéey ga in kaana nam nekk in kaana nam nekk na sharikatu société ga fi daal daani ci jëmmu bu dee société ci jëmmu la yéen ñaar ñëpp mm, dégg a ngi bokk di liggéey liggéey bii mm. di séddoo weccet eh, bénéfice bu ngeen ci am mm. kooku yi moo ne d'accord ngeen ci am waaw laa rawatina sixa ngeen wax ko nag mu leer naññi mm-hmm. ka xawle ahadima ni ki waxi keneen li la axar ñeen keneen ka ne ko chaarik nii bokka bokkaale ak mu wax ka ne chaarik tu ko bokk naag yow mm-hmm. wala zimtu dégg wala zimat war na moom société mm-hmm. bi maa yedulu ci luy wane la ni daay ci d'accord mm-hmm. bu d'accord amee rek war na su ngeen waxtaanee ba d'accord daal kenn sañu tu cee génn mm-hmm. foo ngeen continuer liggéey ba in kaa ne na raqilu aji fas ja alan diyeen i tabaru yi ñeel coobarew ndem mën ngaa joxe sa alal rek man ngaa société ak nit waaye bu dee yow lislaam daf laa tënk wur ku la gardeel sa alal doo mën a bokk liggéey mu ne nag waa jaazat daga naa sharikatu société bi la ab ci jëmm yi ay yaa ngi ma ne ma ne sharikat na société bi ab daani ci jëmm yi ay alaq du fas ala amalin ci liggéey min al amaari ci liggéey jaayisatun aji dagan la saraan ci sharia bi sharti ci sarta sarta mooy lan ma tehaadil wal makaan ak barab ba du ci sarta xanaa barab ba mooy dëkk ba daal mhm. nañ bokk nekk benn dëkk mhm. waaye bokk benn nekk benn barab moom du ci sarta mhm. moo tax mu ne bi sarta itihaadi amali ci sarta bennoo jëf ja da bokk di liggéey ci seen jëmmu di daan seen doole di fayeku di séddoo ah ngeen bokk liggéey bu ngeen di def yéen ñaa ñëpp ñëwkat ngeen ko xëyaate ni ni ki ñëwkat nga dem barab sàngam di fa ñëw moom muy ñëw lañ leen di fay nag ngeen bokk ko di séddoo bénéfice mhm. kooku mën naa nekk aw na jaaree ni wala ñaari ministre mhm. aw saa yi xëy wala ñaari tëgg aw xat daa day nii mm, waaw wala ñaari tëgg këti weñ mm, dégg nga mhm. aw xayaa kay nii ñaari rabbukat dégg nga mm, yéen ñëpp yéen a bokk lu ngeen def nag ngeen wut seen i rek di liggéey di fay bokk société bokk daal ba liggéey joxewu leen xaalis gaa waaye ku nekk daal la ngeen liggéey mhm. yaag sa morom yéen si doon ak kooku mën naa nekk rek laa ne di la bokk leen barab bokk leen dëkk waaye yéen a bokk réew beneen kaa nag mu nekk ku leen képp min sharikeen yi si ñaari way bokkaale yox sinu di rafetal maa yox sinu la mën na ko alaaxaru keneen na fekk kenn ku nekk si yéen ñaar la morom ka man mën na ko rek laa wax de mhm. wa hada li maanaa qawli naazimi mooy maanaa waxu waykat bi maa ittihaadil fi'li ànd ak bennoo jëf ja dafa mel ni sax am na ñu koy def ñaari ñoo ko ci daal rek kii nekk fee kii nekk fee ñu bokk liggéey <laughs> dégg nga mhm. pour ëllëg rek ñu mën cee taxawal lu mat loolu mën naa nekk aw kaan wala mu nekk axaduma kenn ci ñoom ñaar mhm. laa yox sinu du rafetlu maa yox la rafetlu na ko la axaru keneen ka mhm. dégg nga laakin waaye nag itawaqafu dana tënku amalu ahad yi maa liggéeyu keneen ala amali aqal ci keneen ka rek laa fekkee li sa ke man yow mi moom di liggéey mënoo waaye daal mhm. la muy def moom faw la ngay def am ca soo bàyyil ma ngeen société mhm. bayan kaana mu nekk ahadul kenn xëyaate ni kenn ci ñaari ñëwkat ya mhm. kenn ki moom lam man mooy yu fasiru dana dagg asiya ba yëre ya wasaani ku ñaareel kay xiituwaa moo koy ñëw kii mënul dagg ñaw rek la man kii mënul ñaw dagg rek la man mën ñëw société kii dagg kii di ñëw <laughs> ñu bokk séddoo wa ahadul na jaare nii wala kenn ci ñaari menisee يقطعوا ما يدق الخشب بنتبه بالمنشار سيسي وين جرو مريكولاس بالقدوم سيسد سيسمن دينغ دينغ وصاري نعرف يخرط ما يقول لي الخشب بنتبه ويحسن ما يرفتل هيئته ما بنتبه كي ما يدق بنتبه دي دفر ماتيري كم نيمني سيدي دفر kenn nag moom mënul defar mënul dagg waaye daal la mën mooy les bant yi xolli ko ba mu rafet ba nga xam ne waa ji dana ko mën a dagg normal liggéey normal su boobaa man <clears throat> mën nañoo société ndax kenn ku nekk mënoo la sa morom man waaye la sa man nag foo mu xam ngir nga def aw aadu saa yi wala kenn si ñaari way tëgg yi yus bi tëgg nag mooy defar wurus yus ma ngay yes bi bu ku mooy ruyel ak tibra wurus wa aw fidata wala xaalis ba wasaani ñaareel ba yesooxu mooy tëgg alxaliya takkaaya ci moo mën a ruyal wurus wala xaalis bañ mën ko def takkaay kële nag moo ko mën a def takkaay kon ñoom ñaar mm, mën nañoo société ida kaana bu nekkee a sawxu tëgg ga ita waqafu di taxaw ala sabki ci ruyal ga awlaay tax waqafu wala taxawut sax moo xam faw nga ruyal wurus wi door ko mën def takkaay wala daal mën ko def takkaay te doo ko ruyal nañ bokkaat rek ak nu mën a xew rek laa wax leen ndax dañoo jege dégg nga mhm. waaduma wala kenn si ñoom ñaar yadribu mooy dóor bil mitraqati ca martu ba wasaani ñaare bi dama moo koy teg fii xaala bi ci muul mool ba moolu lu nekk rek mooy lañ koy defaree lañ koy nattee daal di ko defar kii mooy door martu ba kii di ko teg ci mool bi pour defar takkaay ga mhm. man ñoo bokk liggéey aw ya wala mu di ko jokkale bi baad yi ci lenn ya bi bi li jaami ca laxab yi almaarufa bañ xamee ndum fa ñoom kii mooy mm, teg ca mool ba kii mooy jël di dugal benn par benn di ko defar ñoo ñëpp mën nañoo tëgg mën nañoo bokkaate ndax la ñuy def jege na aw kaan wala mu nekk ahadul addaa day nii kenn si ñaari tëgg weñ yi yeddama mooy tegal xadida weñ ga fi naari safara wen fokk muy walaale ci moom bil kiiri ci walu kaay ba xataa yaxmara ba mu xonq wedri bu muy dóor ma shariki ànd ak mi bokkaate ga ali ci weñ ga bil mitriqati ci mart ga al kubra bu mag ba waaye de bu muy dóor asaani bu ñaareel ba ku ñaareel ka bi suuraa ci bu ndaw ba kii mooy um, dégg nga jël weñ gi def ci safara lakk ko wal ko ba mu xonk mu dóor ko ci marta bu mag ba kële mooy jël nag dóor ci marta bu ndaw ba liggéey wooyu na si bu muy setal alhadida ku weñ weñ ga moom ku ñaareel ga almasmu bañ defar bil mibrat waaw ci seddalukaay dégg nga way way xudduhu dégg nga mu di ko tëgg di ko defar daal ban ñu bëgg mu mel mu mel ko su boobaa loolu mën naa nekk ndax kee mooy tàngal mooy dóor ci marta bu mag ba kii mooy dóor ci marta bu ndaw bi nga xam ne moo koy defar ba mën koo tëgg nañ ko soxla <laughs> loolu ñu mën naa nekk aw kaan wala mu nekk ahadu xayaa kenn kenn kenn si ñaari way ràbb yi mm-hmm. yu niiru di leeral xas la këcc ga maanaam moo koy raw raw gu rafet wasaani ñaari nag yenn suñu mooy ràbb chaqata mm-hmm. tisi ba kii mooy ñaw lañ kii këre nag mooy raw buum ya bañ mën a ñaw loolu mën naa nekk hmm. fa sharikatu bokkaatee fi jëmee zalika ci mboolem yooyu hmm. jaayisatu aji dagan la li taqaaru bi daama leen ngir jege ñaari liggéey yi hmm. fii kulli sanaatin ci bépp métier boo xam ne zakar naa tudd nañ ko rek wax nii benn bu nekk rek moom morom ko jege nañ moo tax mën nañ caa def société kaana nekk na sharikaani ñaari way bokkaale ya aw shuraka wala way bokkaale yi bu dee dañoo bëri fi xaayotin waahidin ci benn benn lan benn cantine waaw mooy benn cantine rek daa wax de moo xam yéen a bokk nekk ci benn cantine aw li kulli waahidin wala ñeen la kenn ku nekk xaanootin ak magasin yamul dana liggéey fii ci moom da ngeen bokk benn magasin wala ku nekk ak magasin bu xom <laughs> yëpp baax na rek de kon lu borom téere bi wax ne makaani nañ bokk barab namut ci namut ci rek Mm, foo ñu tàqalikoo mm, dégg nga nag mucc loolu bu fekkee kenn ku nekk am nag xaanoot yaamul dana liggéey fii ci moom baax na laakin waaye nag bi charte an tajura si sartu yi muy wëndeelu yedd kulli mina loxo kenn ku nekk maa laa xalaat nag keneen ka maanaam kenn ku nekk na am sañ-sañ sa morom ko de nga xam ne ni tey bu fa soxlaa bagage yi dem jël kii bu soxlaa fii dem jël kii jël bagage yi jox kële kii jël bagage yi ñu jaxasoo daal waaye bu dee kenn ku nekk daal la nga nekk moom sa yoonu morom nekkut ca yaay liggéey yaay def moom defu ci dara <laughs> dégg nga amu ci benn sañ-sañ loolu moom du société kenn xamul lan la de waqalu naazim waxu woykat bi ittihaadul makaani nañ bennoo ci barab daañu fu aji lottu la wal moo tamadu lañ sukkandikoo adam mushtilaat yi mooy ñàkk sartal loolu bennoo ci barab du ci sarta waaye amaana waykat bi na mut ci foo ñu bokk benn barab bi de foo ñu bokk dëkkëre la ci na mu mën naa am wal ma daaru lay ref lay ba daal lay tax mu baax ala yekoona ci mu nekk amulu shuraka yi liggéey yooyu bokkaale bi ba din waaye dañ ci benn dëkk wala taadara di la lii a alam kinatu barab ya nañ bokk dëkk daal di la barab yi lii mun a nga déggees na kon buñ bokk dëkk du baax mën naa wal makaan yi loolu lay firi moo tax ma wéyum kin dana jàpp ne xam lu kalaami naazim yi ñu xeen waxu woykat bi ala axir yi ci bu mujj bi mooy ne lam bëgg a wax mooy nañ bokk dëkk rek de loolu na mu ci barab ba waaye bu ñu xasee nekk benn dëkk nag moom barab yi mën naa wutee waaye nag kenn ku nekk na am sañ-sañ ci morom ko daal na ci am loxo bu gudd nga xam ne ma ngi cee loolu mën nañ koo bokk liggéey wala yusrat ismu ma wala boog xasmu ma si dee nga xam ne taxsul dana amee min amali sharikay ni si jëfu ñaari way bokkaale alal musaawaati ci yemoo duñu kat ñoo bokk di liggéey kon yemoo bénéfice déedéet bal li fi nekk li kulli ñeel na kenn ku nekk naa si bu la dëppoo amuloo jëfam min ajiri ci fay kenn ku rek lu toll nii da nga liggéey loolu ne lay jox bu dee daal bis bi buñ ko xaajee ñetti xaaj kenn ki mooy liggéey ñetti xaaja ki benn xaaj ba lay liggéey su liggéey ñetti xaaja bu bénéfice bi ñëwee dañ koy xaaj bu dee bis bi buñ ko xaajee ñeenti xaaj kenn ki mooy liggéey ñetti xaaja kenn ki benn xaaj ba bénéfice bu ñëwee xaajal ñeenti xaaj kay liggéey ñetti xaaj nga jox ko ñetti kay liggéey benn ba nga jox ko benn ba mu jeex laakin li fi ne yustratu dañ sartaal an takkoona mu nekk alatul amali jumtukaay liggéey ba baynahuma di nekk seen diggante bi milkin ñu bokk moom aw ujratin wala ñu bokk luyee ko la ngeen di liggéeyee bi ngeen liggéeyee yéen ñaar koy bokk moom wala ngeen luyee ko di ci liggéey waaye kenn moom matériel kenn di liggéey ñoom ñaar kenn di moom matériel ba ñoom ñaar ñëpp di ci liggéey ñu ñuy kooku nanguwuñ ko mm. kon bu dee kenn moom matériel ba nu ñuy def mu ne fayn kaanat nem nekk na moom matériel ba mm. li ahadi ma ñeel kenn ci ñoom ñaar jaxalaat lañ def laa ñeel matériel ba ujratan mu di waaw ci mu di mu di lu ñuy fay waxta sama ñu séddoo ma fadal la des kon dañuy mel ne rek ñoom ñaar ñoo luyee bi mm-hmm. su dee lañu war a fay bi yow mi nga xam ne moom woo nga joxe genn wàll ga. Mhm. kee moom moo ko moom moom mu ngi mel ni kon joxe na genn wàll ga de. Mhm. su ko defee nag ngeen door si doori des noonu lañ noonu lañ koy defee wala muraat lañ na mu bir ujjati ci fay an yoot yi mu joxe a sharika ji bokkaale ji nga xam ne moomul matériel ba ni su ujratin genn wàllu fay mhm. ni su ujrati alal genn wàllu fayu matériel ba li maalika ñeel ko ko moom de su boobaa yow mi nga xam ne moom moo matériel ba waaw yaa joxe genn wàllu matériel ba rek lañ ci war a fay rek laa wax de bu dee matériel bi cinquante mille mooy moom lañ koy luyee su weer dee weer dee war a séddoo am ngeen ci bénéfice cent mille franc dégg nga mhm. su boobaa mm, yow waa ji dafa mel ni moom matériel ba war na see joxe vingt cinq mille mhm. yow it nga war see joxe vingt cinq mille mhm. kon beneen cinquante mille bu def loolu ngeen séddoo ndax loolu mooy seen bénéfice wa maa al adamu istiraat al musaawaat barab bi ñuy ñàkk sartaale xemoo fi xismati si séddale ga in kaana mu nekk ahadu sharikayni kenn ci ñaar yooyu bokkaate yi laa yox sin du rafetlu maa yox sinoon rafetlu ko ne ko alaaxira waaye bu dee yéen ñaar ñëpp yéen bokk lu ngeen man yéen a bokk lu man yéen liggéey bu baax ma ngeen sartaal ne foo ñu séddoo bénéfice day xemoo fa taxadaanam benn nañ fi maarifati amali ci xam liggéey ba te yéen ngeen bokkaate mooy liggéey bénéfice bi ngeen séddoo yéen a xamoo li ngeen liggéey ak lépp ah xam nga wërsëg yi sax mën naa wañu tolloo waaye teew da ngeen a xamoo rek laa wax de ndax liggéey ba leen fay te yéen a ci moom voilà bu a ñàkk mën a du xool ñu dugg ala musaawaat ci moom fi xismati séddale bu dee ñaan a ko bokk xam kenn rawut morom ko ci xam ko kenn gënu koo xereñee yéen ñaan ñëpp yéen ko xereñee te yéen a xamoo li ngeen liggéey kon luy baax daal mooy ngeen bokk séddoo bénéfice bu dul loolu du baax fa in daxalaa nem dugg nañ ala tafaaduli ci gën lante fiyaa ci bénéfice bi waxaaltu te mbir mi xaaj yi comme nii la fasala yàqu na làqdu fas njaay ga bu fusi xatañ tas ko bu fekkee nag dañoo gënante ca bénéfice ba yéen a xam liggéey bi yéen a yem li ngeen xamee métier bi yéen a yem li liggéey ah su ko defee nag ngeen ne dañuy bokk liggéey waaye diw mooy ëppale ci bénéfice ba dañ koy tas rek laa wax de gis nga kon islam bu fekkee daal mbir yi yemut mm-hmm. bénéfice bi bu yemee du baax bu dee mbir yi ñoo yem bénéfice buñ ci ëpplante du baax. Mm-hmm. diine bi maanaam allahuma lu mooy ilaani tabara mu coobare wu ahadu sharike ni kenn ci ñaari way bokkaate bi seen ci dara mais sati ci cëram li shariki ñeel kam bokk ak baadal xaq di gannaaw buñ ko fasee min xeeri saatin ci dudu sarta su fekkee daal ñaar ñi nga xam ne nii ñoo bokkaate affaire yi dégg nga ñaar ñi nga xam ne ñoo bokku société bi ñoo xemoo lu ñuy liggéey waaye kenn moo jël dara ci bénéfice bi may ko moroom ne ko yow de bénéfice bi ñu ko xaaj ñetti xaaj jëlal ñaari ma bi moo ko def ci coobare boppam kooku dara nekku si ndax du charte nag moo tax illaa it baraal mu coobare ba aadu ah, chérikee ni kenn si ñaari way bokkaate bi seen ci dara ministre si cëram si chériki ñeel kam bokkaateg baadal àq di gannaaw bu ñu fasee nag min xeeri sartin ci lu sart rek laa wax de way laa dem demeewul noonu way laa la demee kon fee jus dana dagan rek laa wax de bu fekkee yaa dañoo fas njaay mi ba pare dañoo fasu si digg ba pare nga jël su boobaa dana dagan rek laa wax ndax mu ngi mel ni ku jël àll maye ko rek de bu dee sartal lañ ko de dégg nga in uriidu al-islaah mastata'tu wa maa tawfiiqii illaa billaah alayhi tawakkaltu wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh